muy nett li xisa yonente yi te ñu bari ci taalibe yi doon sàkku ñu nett li leen xisab sayidina isa alayhi salaatu wassalaam daddi sayidina isa béréb yi ko sunu boroom tudd ci alxuraan lu ci ëpp def cay tuddaale way juram jigéen Maryam te lu ëpp buy tudd Mariam dina tuddaale Zakaria mi ko yar Zakaria saa ko tuddee dina tuddaale Yaxya mu mel ni kon e, bu nu jiitaloon sayiduna Zakaria annabiyu alayhi salaatu wasalaam ak doomam Yaxya tudd sayidatuna Mariam doo ko tudd Isa jàngat ko dana doon lu am solo. moo tax ñuy wax nabiyullah léegi kon waxtaan wi tey ñu ngi bëgg a waxtaane Zakaria ak doomam ji ñuy wax Yaxya alayhim salaatu wassalaam turu Zakaria nag ñëw na ci euh, alquran lu mat juróom-ñaari yoon ci suuratu Ali Imran ak ci suuratu Maryam ak ca suratul An'am ak ca suratul Anbiya fu ci ne suñu borom tudd na fa Zakariya waaye daf koy lëkkale ak Yaxya suñu borom wax ni wa Zakariya ayis naa de rabbahu rabbi laa tadarni fardan wa anta xayrul waarisiin mun yonte bi fàttalikul leen xisab Zakariya ba muy woo boroomam di wax ni yàlla yàlla ba ma bàyyi ma wéet ndax yow de yoway ngeen ji way donn tudd na ko ca suuratu ali imran wax ne wa zakariya wa yaxya wa ise wa ilyasa kullu min saalihin wax ne zakariya ak yaxya ak isa ak ilyas ñoom ñëpp ci ñu baax ñi lañu bokk waaye ba muy tudd xisab Maryam ak soxna Seex soo Soose doon ñaan doom bañ mañ ko Maryam bi muy tudd xisab bi tudd na ci yar gi mu ko yar ci suratu kaafir noonu Zakariya nag aw askanam wuute nañu ci waaye li ñu dëppoo daal mooy ni ci sati yonte yàlla daawud la bokk alayhi salaatu wasalaam daawud da bokk ci sati yahoza yahoza doom yaqub kon min walad yaqub ibnu isxaq ibnu ibrahim abul ambiya mu nekkoon di denc soxna suñuy wax ashba bintu imran ashba moomuy ak mariam mi woy juru sayiduna isa ñoo bokk ndey ak baay seen ndey mi ngi tuddoon xanna Xanna moo nekkoon soxnas Imraan jur ñaar ñooñi Imraan mooy kan Imraan doom ibnu ku wax Mataan ibnu Yaamim moom itam mu bokk ci sëti Daawud alayhi salaatu wasalaam asbaa moom di maggi sayidatuna Maryam mooy way juru yaxya ibnu zakariya kon yaxya doomu ndeyu sayiduna isa la alayhim asalaatu wasalaam zakariya mi ngi nekkoon di ab monise daf daan lu mu doon liggéeyam ni mu wàcce ci ni mu dikke ci xadiis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam zakariya yahood yi dañoo siiwal ne mo def ñaawteef ci sayyidatuna Maryam ba tax ñu ray ko ñu koy ray dafa daw ba ci ak garab garab ga ne ko ñëwal yow na yow yent bi yàlla ñëwal mu làkk la mu dugg waaye seytaane topp ci ginnaawam jàpp ci lafal mbuma mu tuut di ci feeñ ba ñu ñëwee mu yor jëmmi nit ne leen lu ngeen doon topp wut ñu ne ko dafa am ku ñu doon topp bu fii gis suñ ko mën leen mi ngi ci doon garab gii lu tàggat da ko njabar ba dugg ci biir ñu ne ko de loolu mënut nekk mu wan leen catul mbuum ni leen mi ngi nii ñu rees ko ba xar ko ca garab bi xar ko ñaari gaal loolu mooy li sax te ibnu kasir andi ko muruju zahab bu mason it andi ko kon liñ saxal daal mooy Zakaria mooy ki nga xam ni moo duggoon ca garab ga ñu xar ko ñaari gaal ñu wax nag ni ashba moom yi di soxna si Imraan nag bi mu amee doom mu Yaxya dafa daw ak moom ngir yi misra yi nga xamante ne dañ daan faagaagal nit ñu baax ñi dee ba doon magum jëm suñu borom yónni ko ci bani israil mu tàmbalee woote ci diini islaam di jaamu yàlla di woote ak jaamu yàlla di leen ragalloo mbugalum yàlla ci waxtu woo xam ne nag booba ak kàccoore dafa tisaaroo woon lool yàq-yàq yi bari lool ay buur yu kàccoor yi nekkoon fi booba daan tooñ nit ñi di yàq ci kaw suuf di def daal yoo xam ni doy na war dañu dawuñu sàmmoonte it ak orma yi seen yonente boobu ñu bari ci nit yàlla yi ñoo leen rey ñu bari ci yonente yi ñoo leen rey ñoom buur yooyu ba tuur lu bari ci ay deret ka ca gën lu gën ca ñàkk solo nag moo ko ñu wax هيرودس هيرودس لنكن فلسطين نكن في أب جويرنر ومومي موديك لي نوري يحيى تجيب لو جدر لو ياسو سر الخلوب جيجن جمودون بغرك دانا نيو تي حساب يحيى ان شاء الله تكنم Zakaria mu dajeeg lu daje nag lu bari ci ay lor ci bani Israil ak àttekat bani Israil lor ju taratal mu daje ci ak moom njàqare yu bari bari toftaloo ci kaw ak ci tartar yu diis waaye lépp mu muñ ko rek muñ gu rafet moom Zakaria bi mu demee nag ba néew doole màggat dañ ñaan suñ borom te suñ borom nett li ñaan gëm ñaanam ci alquran wa zakariya isnaadi rabbahu nidaan xafiyan قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا تلو المي فاتلكل وقت وزكريا ودي وبرمو وقو صوف رب قدي نيبوني تك من يعني الله نكمان دي نيونا كتن بجاونا te it li ma la lépp di daawuma daawuma ci gis lu dul ak wuyu tamaloo ma lu dul wuyu sama ñaan bu mu ñaanee nag ñaan ko gi ci la ko suñ borom maye doom muy Yaxya Zakariya moomu nag moo yar Sayyidatna Maryam Zakaria dafa dencoon mbokk Mariam loolu la ñu bari ci borom xam-xam ñu wax ak donte am na ñeneen ñuy wax ni yaay ju ndawi Mariam la dencoon waaye ñu bari ci ñoom daal li ñu dëppoo mbokkam magam mu jigéen magam mu jigéen la yoroon Xanna mi nekkoon soxna sa Imraan bokkoon ci jaamukatu yàlla yi bokkoon ci jigéen ñu baax ñi moom itam màggat te amul doom. doom ju góor amul doom ju góor waye ben bis mu nek ci ron ak garab gis am picci muy lele ab ciujam xelam xemem lol dom ju gor mu ñaan yàlla niko ko ba mu mayee doom ju gor nezer niko dama koy boole ci jaamukat yàlla yi nga xam ne dañuy féetewoo jaamukaay jàkka ji di liggéeyal jàkk ji di liggéeyal nit ñi di liggéeyal yàlla ci biir jàkk ji loolu mooy ma mooy inni nadartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni booba neseer mi ngi daan nekk nit ki fab doomam jox ko yàlla bu koy jox yàlla it day dem jox ko joxe ko ci jàkk ja mu bokk ci ñey liggéey di bale di defar féete fa du fa jóge mukk te du dafa dem ba majeur bu demee ba doon mag nag ba ba baalix foofu nag mooy tànn bu bëggee sax wéyal liggéey boobu jàkk ji baax na bu bëggee dem yoonam it mu dem yoonam waaye bu muy doon gone daal nga koy joxe foofii jox ko yàlla mu nekk ci jàkk ji liggéey waaye mu ne Imraan mi nekkoon borom këram it nag bi muy faatu booba mi ngi ëmb moom soxna si boobu mi ngi ëmb sayyidatuna Maryam moom alayhi salaam bi mu amee doom gis muy jigéen mu ni bi inni wadaatuha unsa li ma ne seeroon day bëggoon mu nekk ci jàkka ja di leen liggéeyal day jur naa ko muy jigéen te jigéen day xam naa ni mënut loolu yi ndax li koy gaar ci ay regal ak yu demee noonu لأني وإني أعيزها بك وليس الذكر كالأنثى سنبرم دني والله أعلم بما وضعت يلا خم موغنا خم لم أم وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم دني غوردي بوكت جيجن دخ لا غوردي من تتخوا في جاك جيجن دوكو من وانكو تدن مريم مريم لا بيتك موي العابدة الخادمة دامو كتو يلا بوي لغيال يلا سي جاك جيجن wa inni u'izuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar mu ne maa ngi koy muslul nag ci yow moo ki sëtam moo ki doomam ngi leen di muslul seytaane xanna bi mu amee doom ji muy jigéen mu ñaan ñaan googu daf ko daldi di lëmës ci aw morso daal di koy yóbbu ci jàkk jox ko boroom xam-xam ya fa nekk ñu doon seti Haaruna ñu ñoo daan féetewoo baytul maqdis ni ba ni banu sayba di féetewoo kaaba gi rek di ko yor ñoom ñoo féetewoon loolu ñoom mun leen jël leen kii ab neseer la bu ma neseeroon waaye ñu daal di koy jëkkante ngir doomi seen imaam la di doomi seen sang di imran imran ci boroom xam-xami bani israil yu baax yi la bokkoon ba noppi doonoon kilifa jàkk ji jamono boobu ñu daan def kuñ fa masaan indi ca jàkk ja dañuy tegoo ay bant ba xam kan moo ko ci war a yor bu ñu indi kuñ ne séeral ji ngir mu liggéeyal jàkk ji ñoom kilifa ya fa nekk dañuy tegoo ay bant ba xam ku ko ciy féetewoo Zakaria booba moo nekkoon yonent ci jamono boobu mun leen maa ci gën a yaay ngir man la magam nekk fii fi man ma téye ko yar ko moo gën waaye rek ñu gàntal loolu yi ni ko daal fokk dañ koy tegu ay bant rek nañuy tegu bant yi mooy dañuy sànni seeni xalima ci dex gi dexuk ordon koo ci xam ni xalimaam fee na ci kaw ndox mi moo gën a yaay ci yar doom jooji ñu daal di dem ca dex googee sànni seeni xalima yañ daan bind tawreet xalima Zakaria fee ci kaw ndox mi ñoom seeni xalima diig Zakaria jël ko yóbbu ko ca soxnaam sose nga xam ne mooy yaayu Yaxya mu toppatoo ko nàmpalul ko ba mu màgg mu yóbbu ko ci benn saal ci biir jàkk ji foo xam ne ku fa yéeg fokk ci ab échelle ngay jaar pour mën faa àgg kenn du fa dem ku dul moom Zakaria bu masaan génn dafay tëj bunt bi yor caabi ji wóoluwu ca kenn saa bu soxna si mbasaan gis regal mu génnee ko yóbbu ko këram mu nekk ak mbokkam moomee di yaay yaxya booba muy jeexal regal bi mu doon ko indiwaat Sakariya daan gis nag lu bari ci ay karaama ci ni sunu boroom wattoo soxna soos yi daana ci gis lu ko yéem naka jekk loolu mooy li suñu borom wax ci alxuraan ni fa taqabbalaha rabbuha bi qabuulin xasanin yàlla nangu ko nangu gu rafet wa ambataha nabaatan xasanan saxal koy sax gu rafet wa kafalaha wala wa kafalaha zakariya zakariya mu yar loo ko mbaa mu yar ko rek أمني بن وكف لها زكريا يلا يرلوك زكريا أمني بن وكف لها ميركو زكريا لأن يعني كلما دخل عليها زكريا المهرابة وجد عندها رزقا صابو زكريا دق سيف وفي تي مهرابي في ميجامو يلا فك في ورسك نكو يا مريم أني لك هذا لي فوق فم لباو قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قالت يالله بايكو يالنا موي وسبكو ناخ تلود الحساب أمشي نياناتي مفسر نيني وحني دراد الساب في نيالي في تاك فروي فروي بو خمني دك بيب سخ أمو في نت كندو هو جسفن أم نيني فروي نور لي دون تي جامو ني سد جامو ني تانغور mu gis furwe yi jamono furwe yi sedd ci jamonoy tàngoor bu dee jamono jamonoy sedd it mu gis furwe boo xam ni jamono tàngoor la war a am mu doon karaama bu ko suñu borom defal soxna si doon ko ab jaamukatu yàlla moom sayyidatuna Maryam moomu guddi ak bëccëg muy jaamu yàlla bañ di ci sadd aw lépp ci mën a toppam yàlla ci bani Israël gépp di diw de mën a jaamu yàlla ba mel ni ma lim siiwee woon yit mooy melokaan yu rafet ak jikko yu tedd loolu tax nag loolu nag indil na indil na Zakariya xalaatut ni ginnaaw sun boroom mën na ko indi lii ci jamono bii mooy fure fure bii war a am ci jamonoy sedd mu may ko ko ci jamonoy tàngoor fure bii am jamono tàngoor may ko jamonoy sedd ginnaaw suñu borom mën na loolu daal war na mën a may doom ak li muy nur nur lu yenn di kumaana te booba mag la soxnaam it waxuma la sax mag gi waaye dafa ca boole woon doon ku jaasir jurmel doon jigéen joo xam ne dawul am doom naka jekk ba muy doon gone mu boole ci nag di màggat boole si waaye bi mu gisee karaama gu yéemu googu rek yàlla defal ko sayidatuna Maryam mu xam ne lu ne mu delloo si rek kàttanu yàlla daal di ñaan suñ boroom mu may ko doom ju ragal yàlla joo xam dana ko donn ci xam-xam ak nubuwa yi di jàngal nit ñi aw yiw hunaalika daa Zakariyaaw rabba foofee la Zakariya wooye borom ni ko rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibatan innaka samihu du'a maa ngi ñaan nga may ma njaboot gu baax ndax yow day kuy dégg ak ñaan ga ci beneen aaya bi mu wax ca ne wa inni xiftul mawaliya min waraa'i wa kaanat imraati haaqiran ma di ragal naa sama mbooloo mii ca sama gannaaw mu yàq sama gannaaw mbaa kenn du leen teg ci aw yoon sama soxna si dafa jaasir du am doom léegi nag sa kàttan ñaan naa la nga may ma doom ju ma mën a wóotu ci taxawal di diini ji ak saytu njaboot gi mooy fa habli min ladunka waliyan yarisuni wa yaris min al yaqub waj'alhu rabbi radiya foofu mu nett li suñu borom nett li foofu yi wax jum ak yàlla ni ko may ma njooboo doom joo xam ni dana ma donn di donn ak nubuwa ak xam-xam ci àllu yaqub nga def ko mu doon ku ñu gërëm ca surtu Mariam donn ma ci xam-xam ak nubuwa ak atte bi ci bani Israël ni ay baayam daan def baayam muy sëti yaqub yi waaye jubluñ ci sax donnug alal waaye Zakariya ginnaaw bu mu ñaanee yàlla doomam jooju suñu boroom bégal ko yabal ay malaayka ñu xamal ko booba mu ngi ci mihraab ba di julli ni ko suñ boroom may na dana la may doom ju tudd Yaxya doom ji turam woowu kenn mosu ko am amut aw tur amut turando fa naadatu almalaaikatu wa huwa qaaimun fi lmihraab anna allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimati min allah wa sayyidan wa hasuuran wa nabiyan min asaalihin malaayka yi woo ko boobu mi ngi taxaw ci mihraab bi di julli ni ko yàlla doon la bégale doom ji tudd yaxya mu doon kuy dëggal baatub yàlla te mooy mooy ki jëkk gëm isa nangul ko nangu ni kalimatullahi la doon ab sang di ko aaru di ab yonent bi bokk ci way baax yi suñu borom dal ni yaa zakariya inna nubashiruka bi gulaamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya loolu mooy amut aw turandoo wu tuddoon noonu jëkk ko bi yonent yàlla zakariya biñ ko suñu borom bégalee ci doom jooju mu wax yàlla mu tàmbuli nag di sàkkoo gëstu di laaj ci anamuk yéemu rek yéemu ni jublu sax sikki sàkk waaye yéemu ci kàttanu yàlla googu jubluwu ci sikki sàkk waaye yéemu la ci jublu ndax ambiyaa u yëpp ay xaarifoona billaahi lañ ay yaqiin lañ am seen diggante seen borom ci ne yàlla lépp la man waaye rek mu yéemu daal ni rabbi anna yakun li xulaamun wa kaanat imraati aaqiran wa qad ba'athtu min kabiirin fatiyyan man laay amee doom te man de sama soxna dafa jaasir te it màggat naa wax nañu ni booba mi ngi am juróom-ñeent fukki at juróom-ñett juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent soxnaam am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett ba noppi ba muy doon gone sax dawul am doom jaasir la defoon waaye noonu la ko suñu borom tontoo malaaka yi tontu ko ne ko kazalika xaal rabbuka huwa alayya hayyin noonu la ko si borom waxee te yàlla nee na lu yomb ci man la te bindoon naa la doonoo dara ki la bindoon doonoo dara nag war laa mën a bind war naa mën a bind dara ci yow ak sa soxna ginnaaw bu ngeen amee yéen wala kulli seen xadir mu ñaan suñ boroom ne kon wan ma màndargam ne doom joji boo ko sonn si ambee lan mooy màndargam yi mooy rabbi jaal li aaya may wan mo mande ga khala ayatu ka la tukallimun nas salasa la yalla sabiya moniko say sa mandé ga moy nga dem ba sawla min tejo do mana wax ak nit ni ben bat ta dara jotula waye wax nga dul man sa bo gisé lol rek nga xane mandé ga mang non bu mu ba gis mandé ga momi mu genn ak dal di junju ak njabotam ni len an sabbi fa awhay ilayhim mu junju len an sabbihoo bukratan wa asiya dee leen sabbaal ci suba yi ak ngone ñu wax na ne li ko suñu wax ne ko allaa tukallima annaasa salaasata ayaamin illa ramzan waskur rabbaka kasiran ñu ne def ko ko wax ne ko del tudd sa borom ci sa xol lu bari ñenn ñi ni déedéet day def saabu bu bëggee tudd yàlla moom yàlla lam ñu dana boy ci tudd yàlla waaye mënta wax ak nit ñi lu dul loolu mënta wax mu junj leen ne leen sàbbaal leen yàlla suba yi suba ak ngoon mooy julli ci suba gi ak ci ngoon gi rek suñ boroom nag jàngal nañu ci jaamam boobu di Zakariya bi mu sàkkoo sunu boroom may ko doom juy àtt ci bani Israël yàlla wane na ni wuye na ñaan kooku jàngal nañu ci alxuraan yi ñaan googu bi nga ko ñaan dama ko wuyu wa zakariya isnaadi rabbahu rabbi laa tadarni fardan wa anta xayrul waarisiin fastajabna lahu wa wahabna lahu yaxya wa aslahna lahu zawja kon saxal na ni zakariya ba mu wooyee boromam ni ko bu ma bàyyi ma wéet ndax yaay ngeen ji way doon suñ borom nee nu wuyu ko may ko yaxya defaral ko soxnaam kon mbirum zakariya gént loolu yi mooy dem ba màggat maanaam màggat ñu dem ba naagu ci jàpp dootuñu mën see am doom waaye mu jàpp ci xam kàttanu yàlla nangu ko ñaan yàlla nangul ko ñaan ko bi faatu Zakariya Zakariya ak faatoom yahood di ñoo ko rey wax nañ ne li sabab rey ga mooy bi ñu siiwalee ci bani Israil ni Maryam dafa tollu diggante naafiq yi dañoo tuumaal Zakariya ni moo ko def ñan ñi tuumaal ku ñu wax Yuusuf am na jaar ku daan jaamu yàlla ci biir jàkk ji moo tam waaye wax nañu ni tuuma joju ci lañu teg rey gi ñu ko rey moom Zakariya wax nañu ni dafa dem ba dugg ci ak garab waaye dañoo riis garab ga ba mu xar ñaari gaal moom Zakaria ñu rey ko rek ci kaw tooñaange ci loxol yahud yooyu yi mu faatu doon shahid am ñu wax ni lii sababu rey gi mooy ba ñu reyee doomam Yaxya dañ ko rey ci ndigalul gouverneur de bi ñu wax Hérodis ginnaaw buñ ko rayee ba noppi dañoo yónnee di wër baayam Zakaria mu làqatu ñu topp ko ba mu dugg ci ab tool romb ak garab garab gi woo ko ni ma koy xamam sànq ci kàttanu yàlla ni ko ñëwal yow yonent bi yàlla bi bi mu ñëwee garab gi xar ci kàttanu yàlla mu dugg ci biir waaye mu daal di këpp tàppuwaat tàppoowaat ba mel ni dara newu fi waaye noonu yàlla bi di iblis ñëw jàpp ci catul mbu mi fexe ba dara di feeñ ci moom bi mu ñëwee mu wax leen leen lu ngeen di wër ñu leeral ko ko mun leen mi ngi fii dëggaluñ ko mun leen catul mbu maa ngi ni ñu des garab gi ba xar ko ñaari xaaj waaye ginnaaw bi sunu borom yabalal na leen ki yées ci nit ñi moom itam mu fayul Zakaria moom fay gu metti ndax rey tara tara tar ñoom bani Israël suñ borom net li nanu tooñu gu yahuud yi ak rey gi ñu daan rey yonante yi ci alxuraan nee na afa kullama jaakum rasulum bi ma la anfusukum mustakbartum saa bu leen ab yonante ñëwalee indil leen lu neexul seeni bakkan ngeen rëy rëylu fa fariqan kazabtum wa fariqan taqtuluun di la wax ci alquran ni fa bima naqdihim misaaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihim al anbiyaa bi xayri xaq ci fecc gu ñuy fecc kulëre ak weddi gu ñuy weddi kéemaan yàlla yi ak rey gu rey yonante yi ci lu dëgg wa qawlihim qulubna qulfun bal tabaa allahu alayha bi kufrihim fala yuminuuna illa qalilan ci suratu nisa kon duros yiñ ciy jàngee ci xisab zakariya boobu la ci jëkk rek mooy solos ñaan ñaan am gum am solo ci ab jullit eh, te mu ngi feeñe ci soxna si Imraan mi jëkk ñaan yàlla may ko koo xam ni dafay nekk di cërub jàkka ji ba ko suñu doon defee muy jigéen def na ko mu doon jigéen joo xam ni eh, ku xar baax la ci ak jaamu yàlla ak ci dëddu àdduna ba moo jur yonent yàlla Isaa mu bokk ci ulul azmi mina rusul kon nyaan appunaa zagane nakanonu zakariyaa momitam bi mu gisee karaama bi suñ borom defal sayidatuna mariam mu daldi ñaan boroomam lam jàppoon ni lu jomb la daanaka waaye mu ñaan xam ni kat nu yàlla mën na mu ñaan ko yàlla waa te mooy hunaalika daa zakariyaa rabba jël nañ yit ci abu hurayra radiallahu anhu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni guddi gi bu ñetti xaajam demee bu xaaju guddi gi demee sulus sulus bu njëkk bi wala xaaju guddi gi euh, sunu borom day wàcc ba ci asamaan si ngay jëkk a jot daal di wax ni ndax amul kenn ku may laaj dara ma jox ko ko ndax amul kenn kuy jéggalu ma jéggal ko ndax amul kenn kuy tuub ma jéggal ma tuub ma jég ma baal ko ndax amul ku may ñaan ma wuyu ko xadis boobu buxaari ak muslim tirmisi ibn maajah ak imam malik ak addarimi ñu ñëpp nettali nañu ko muy xadis bu kon xissa yii dañ koy tudd da ko sunu borom daf ko wax ci alquran ngir bëgg nu roy leen nu roy su yonente boobu ci xam ni kàttanu yàlla mën na lu ne ñaareel bi liñ ciy jànge ci ñaareelu dars bi mooy yàlla ku mu àndal bu àndee yow nit ñi dañuy jëkkante ci defal la bu àndul ak yow nag ka la gën a jege moo lay jëkka won gannaaw loolu dafa leer lool ci jëkkante gi ñu doon jëkkante sayidatna Mariam ngir yar ko ba bëgg caa xeex ba attan caa xuloo wa ma kunta ladayhim is yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu Mariam wa ma kunta ladayhim is yaxtasimoon waaye ñetteelu liñ ci jàngeen mooy karaamaatul awliya maanaam teraanga ji suñu borom di teral ay wàlliyam xissa boobu yi ñu ngi koy jàngee xissa boobu yi di wax ni euh, soxna si euh, dañ fay fekk wërsëg wërsëg wi ñii nee nañ furwe lay doon ci jamono jum wërta mën a am muy jamono yi sedd mu gës fa furwe jamono tàngoor jamonoy tàngoor mu ngi suuf jamono sedd léegi borom xam-xam yenn nat yi ne déedéet xam-xam la boo ko yàlla jox boo xamante ne daf ko yéem moom ci yéem bopp moom yonte yàlla Zakaria waaye wërsëg la wërsëg bu ñu maa doon rek karaama la ñu di ci jàngee rek ni amul benn jullit buy góorgóorlu digganteem ak boromam sàkku cofelu yàlla te du suñu borom dana ko taral dana ko jox teraanga teraanga ju ne moo xam daf koy xaral baax wala lenn ci luwaay yi ñu bëttal ko ko muy fi ñu daan jaar ngir nangam moom bañ ko fa jaarle wala dara lu ràññi dara lu ràññ ko rek waaye jullit bu dëggal bu nga diggante sama borom daal teraanga jooju sama borom dina ko defal waaye ñu jàng ci ne ndeke ñeetaane dagan na ñeetaane nag Zakaria dafa mébét am doom ju baax ju mel ni soxna sii joo xamante ni ku ragal yàlla doon ku ko mën a téyel gannaaw mel na yëg-yëgu gis nit ko am lu la yéem nga yéem ko bëgg ko ñaan ko yàlla loolu doomu aadama la ko yàlla taqarir bu dee lu jëm ci àdduna moom la bañ nga di ko mébét ndax mën naa andi ki ci kañaan waaye bu dee lu jëm ci yàlla moom moom la aw tagg lay doon ci nit ki nit ki saa bu gisee cër bu am ci boromam mébét ko góor ci jëm ca loolu moom lu diine tagg la waaye bu dee mbirum àdduna nag euh, mébét lenn lu nit am ci àdduna si dañ koy bañ nga xam ngir mën naa yóbbu nit ci euh, kañaan kon yëg-yëg bi benn bi la waaye bu dee lu jëm ci mbirum yàlla euh, luñ tagg la bu dee lu jëm ci mbirum àdduna tagguñ ko muy yëg-yëgu gis lu nit am nga am ci xaymanteef di ko mébét moo tax suñu borom ni wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadakum ala baad bu leen fekk mukk yu nit eh, may yàlla mayub yàlla gu yàlla may ak jaamam ngeen di ko mébét bu dee ci mbirum àdduna ndax bu dee ci mbirum àdduna ndax bu dee ci lu mel ni eh, lu jëm ci mbirum yàlla ñeetaane bëgg nañu ko ci ndax boo ko ñee rek da nga sàkku te boo ko sàkku yàlla mën la ko may yonent bi nee la laa laa xasada illa fi snayn iñaan day amul ci yenn waaye fekk ne baatub kañaan la jëfandikoo foofu waaye rëb ta ñeetaane la jublu de warta am ci lu dul ñaari mbir lu dul ñaar ñi ñaar ñi képp de bu ñeetaane amee ñoom lañu war a ñee muy nit koo xam ne suñu borom daf koo may alxuraan mu koy taxawee guddeeg bëccëg ak nit koo xam ne suñu borom daf koo may alal alal jooju mu koy dépensé ci yoon yàlla guddeeg bëccëg ñaar yooyu donc nga jar a ñeetaan waaye dinañ ci jàng it ba tey solo yar ndax yar gi mu yaroo ci loxol yonente boobu muy Sakariya mu soxna si tax na mu bokk ci tànnee fi ci yàlla yi ak euh, dëddu àdduna lépp daje ci moom ci lu ñuy sàkku ci nit ku baax waaye ma ne xissay alxuraan yi nag jublu ci rek euh, mu doon xissa bu ñu net li nga xam ne nii la demee woon waaye lam ca jublu ci ab jullit mooy ñu doon mu doon royteef ci nu ndax yonente yi ñooy yamukaayu doomu adama yi kon nañ leen jàppe royteef fu ñu jaaroon fu ne rek aw yoon la imraatu imraan neser gi mu neser li mu ëmb neser koo jox yàlla ngir mu di ko liggéeyal ca jàkka ja nit ku ne daf ci war ko war a toppandoo seet loo mën nga jox ko yàlla fab sa doom joxe ko ngir jëm yàlla fabal sa alal joxe ko ngir jëm yaay Anas ibnu Maalik day ba yonante bi ñëwee Madina daf ko andi ci yonante bi ni ko xos xawaay demaka waddahu llaah lahu jëlal kii muy sas curga di la liggéeyal te nga ñaanal yàlla kon kooku mel na ne moom euh, toppandoo na Imra atu Imraan ci jox gum jox doomam yàlla ngir muy jaamu di liggéey di xidma di liggéey rek ngir jëm yàlla léegi naka noonu dañuy bëgg jullit ba ne di roy lu mel noonu yi léegi loo mën rek joxeel joxeel sa alal joxeel sa sa joxeel sa temps sa sa sa sa jamono ngir sa heure ngir jëmmi ngir jëmmi yàlla lépp nga liggéeyale ko yàlla euh, loolu luñ bëgg la ko toppandoo ci soxna si Imran Soosi loolu la ñuy tuddee xidma waaye dinañ jàng yi ni la gën a jafe ndekete boo ko ñaanee suñu borom mën na ko yombal la meloon ni lu jomb sax ndekete bul jàpp ni dara jomb na ci kàttanu yàlla lu mën a doon jógal ci guddi heure bu guddi ñaan yàlla sell te am kóolute ne dana woy sa ñaan googu situation yow mën a dund bëgg mu soppi ko ñaan yàlla mu soppil la ko ñaanal yàlla mu soppi liggéey booy liggéey te bëgg ko ñaanal yàlla mu soppi la béréb boo nekk te bëgg faa nekk ñaanal yàlla mu jàpp ndaw la li la bëgg nit ko def war ñaan yàlla lépp jafe-jafe bu mu mën a doon boo booy dund te neexu la ñaan yàlla mu soppil la ko ñaanal yàlla bu fekkee da ngaa yëg jikko ju nekk ci yow te bëggoo jikko ju neexu la ñaan yàlla mu dindi la ko bu dee ak nay la bu dee ak ragal la bu dee lu mën a doon rek nit ki mën ci boppam loo xam day xam jikko jikat nekk na ci waaye neexu ko am nga doom mu mel noo bëggu ñaan yàlla mu soppil ko nga doom jigéen du mata si gisu kenn ñaan yàlla mu jàpp ndal la ko waaw yëg nga tawat yoo xamante ni jëkk ngay dem ci docteur bi rek léegi ñaanal yàlla tawat ji dem nga ba ci docteur bi yi ñu kenn mënu ci dara ñaanal yàlla léegi bul jàpp ni dara jomb na ànd ak kàttanu yàlla loolu kon moom mooy xisab euh, euh, Seydina Zakaria ak lañ ciy jàng bu dee euh, moom daanaka moom xisaam guddul ci ni ko alquran nett leen ndax daanaka bu xasee tudd ni may naa ko doom di ñuy wax Yaxya lam ca nett li ca sóortu Mariam day mooy lim ko digal moom suñu doon yaa Yaxya xusil kitaaba bi quwwa wa aateenaahu lxukma sabiya mu ni ko nag alxu téere bii jàppe ko doole daal di wax ni jox nañ ko xikma ca ba muy doon ko ne ma wa xanaanan min ladunaa wa zakatan wa kaan taqiyan defal ko yërmande defal ko ak sell mu doon ku ragal yàlla wa barran bi waalidayhi doon it ku daan topp ñaari waajuram walam yakun jabbaaran hasiyan nekkul woon it di kuy topp bakkanam de mooy yàlla daal ne wa salaamun alayhi walida wa yowma yamuutu wa yowma yubaasu hayyan waaye nag yàlla defal na ko ak mucc te bam juddoo ak buy faatu ak buñ koy dekkal muy ñetti birab yoo xamante ni eh, ci la nit gën a aajowoo ak mucc tay dañuy wax nak ni téré mom tan moko jàpp ak doole te tu dang ko jëkke xam ba nopi euh dor ko jëk dor ko a jëfe imam ahmad nettali na ba tey jële ci xaaris al ashari ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa digaloon yaxya ibn zakariya juróomi baat ni ko na den jëfe te digal ko bani israil ñu jëfe ko waaye mu xaw ko yeex a jottuli Isa ni ko yow de digal nañ la juróomi baat nga jëfe ko digle digal ba Israel ñu jëfe ko benn nag nga jotal leen ko mbaa nga bàyyi ma jotal leen ko nee na mu ne ko yaa axi yow sama mbokk man di ragal naa boo ma jiitoo dem jottali ji ko rek yàlla mën na ma ca mbugal mbaa mu muur suuf si ci sama kaw nee na noonu yaxyaa daal di dajale ba bani israil ci baytil muqaddas jàkka ji fees dell mu toog ci aw tund sant yàlla tagg ko ne leen yàlla digal na ma juróomi baat yoo xam daf maa digal ma jëfe ko digal leen ngeen jëfe ko ba ci jëkk mooy ngeen jaamu yàlla bañ koo boole ak dara ndax loolu day euh, mi ngi bokkaale di mi ngi mel ne nit ku jënd ab jaamam ci àllam ju sell waaye jaam ba tàmbali saa bu liggéeyee fab la muy liggéey dem yët ko beneen sang bu bokk te moom mi ko jëndoon kan ci yéen moo bëgg lu mel noonu wóor na leen bëggu leen ko ñu ne ko waaw mun leen nag noonu la noonu ngeen demee seen yàlla moo leen bind di leen wërsëgal kon leen ko te bu leen ko booleeg dara digal na leen julli yàlla day kanamam daf koy ja daf koy samp mu jaakaarloo ak yow booy julli ab jaamu buy julli bu ne suñu borom ngi jàkkaarloo ak moom li fekk geesuwut kon bu ngeen di julli julleeti bu leen di geesu Zakariya ni leen suñu borom digal na leen woor te koor day ni ma leen ko mën a misaal mi ngi mel ni nit koo xam dafa yor biteelub misk ànd ak mbooloo ñoom ñëpp ñu yëg xet gu neex ni leen nag xetu gimiñu koor moo gën a neex fa yàlla gëttug misk googu ma leen wax xetu misk googu yàlla digal na leen sarxe loolu it ma leen ko doon misaal mi ngi mel ni nit koo xam ne ay noonam dañ koo jàpp yeew ko ba mu dëgër indi ko ngir bëgg koo rey mu ni leen ndax mën na maa jotu ñu d'accord rek moom ci jotu bi muy jotu ndànk ak li joxe partout yi ak lu bari ba bañ bàyyi ko mu dem mu ne ab sarax noonu lay jote nit ki noonu lay jote nit ki ci lépp lu ko war na gàllankoor suñ borom digal na leen ngeen di tudd yàlla lu bari loolu nag mi ngi mel ni nit koo xam ni ba tey ay noonam dañ ko doon topp topp ko topp ko ba mu fekk benn sange bu aaru mu dugg ci biir sange wu ca ni leen jaam fi mu gën a aaroo ci seytaane mooy na mu gën a baree nu muy tudde borom nit ki lu mu gën a bari daal tudde yàlla gën a aaru ci seytaane kon loolu sange la nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la waxee ni may itam nag naa leen digal juróom yoo xam ne suñu borom digal na ma ko mooy na ngeen taqoo ak mbooloom jullit mi na ngeen di dégg ndigal na ngeen di topp ndigal ak gàddaay ak jihaad yoonu yàlla képp ku génn mbooloo mi day lu toll ni ab sebre na nga xam ne summi nga buumu kolere gi doxoon sa diggante ak diine islaam dara du nga desi képp ku woote woote jaahiliya jaahiliya na xam ni ci ci mbubitum safara la bokk mattum safara ca lay bokk ñu ne ko yow yonent yàlla bi ak doonte day war ak julli sax mu ne ak doonte day oor ak julli wax nee ab jullit la dee leen wooye jullit yi seeni tur yi leen sunu borom tudde muy almuslimina almuminina ak ibadallah dee leen wooye ay jullit di leen wooye ay gëm di leen wooye ay jaam yàlla loolu yi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ma itam digal nañ ma ko digal naa ko dëddu àdduna gi nga xam ni moom soñ boobu dëddoon ni ko àdduna muy Yahya ibnu Zakariya dañuy nettali ba tey ne dafa doon daan wéet lu bari di dem ci àll yi di lekk xobi garab di naan ci ndoxi dex yi di dundee ay njëreer ci lenn ci jamono yi ba noppi nag jàpp ne di wax ne ana kan moom a gën a xew man yaxya yow yaxya kan moo la ëpp xew ibnu asakir net na ni ñaari woy juram mas nañoo génn di ko seeti ba muy doon gone ba mu génnee ci ngoneem ñu génn ba fekk ko ci bu xayratu ordon nga gis ordon bañ ko gisee mu jooylu leen jooy yu tar ngir nañ ko fekke ci ak jaamu yàlla ak wërgal yàlla ba ñoom ñaar dañoo jooy jooy yu tar wahab bu jël na ci Malik ibnu wahab moo jële ci Malik mu jële ci Humayd ibnu Qays mu jële ci Mujahid mu wax ni Yahya ibnu Zakariya daan dunde ñax da daan jooy ngir ragal yàlla ba dafa mujj jooy yooyu def lu mel ni am aw rëdd wu ñuul ci ci laxe ibnu Barak wax na ni nett la mootum jële ci waxee bu nul ward mu wax ne Zakaria dafa mas ñàkk doomam jooju di Yaxya ñett fan yoo xam ne gisu ko mu gën di ko sàkku di ko wër ci àll bi ba fekk mu gas lu mel ni ab bàmmeel dugg ci biir sax fa di jooy mooy ko ay yow sama doom ñetti fan ma di la wër nga ñëw fii gas fi am pax dugg ci di jooy nii mu ne ko yow sama baay du yaa ma waxoon ni ma diggante aljanna ak safara manding mu rëy la moo xam ni la la la ñuy war pour pour moom la ñuy war pour jéggi ko mooy jooy mooy war waay bi ñuy war ngir dog diggante aljanna ak safara mu ko jooyal yow sama doom yaa di wax na ni Yaxya daana wax ne waa aljanna du ñu nelaw ngir bànneex ba ñu nekk ak xéewal yi ñuy dund naka noonu it yellut ci siddiqoona yi ñuy nelaw ngir li ñuy yëg ci xéewal ci seen xol ci cofeelu sunu borom wax nañu ko ba doon ay jooy sababu rayug Yaxya li ñu wax nag ni moo sabab ñu ray ko tudd nañ ci ay asbaab yu bare bëri waaye li ci gën a siiw dal mooy ñenn ci buur yooyu mu jamonoteel ca Dimashq da cee am buur bu bëggoona a ci soxna sumu aramanteel wala daal koo xam dëgganul mu di ko takk Yaxya tere ko ko loolu nag des ci xool soxna si ba ñu demee ba jaxasoo ci nañ ko bëgg mu ni ko loo bëgg tey ñaan ma ko may la ko mu ni ko dereti Yaxya na may ma ko buur bi daal di yabal kooku mu may kooku mu daal di yabal moom jigéen ji ku ko rayal Yaxya indil ko bopp bi def deret ji ci benn beer waaye wax nañu ba mu ko defee ca la dafa atum jigéen jooju ñeneen ñu ni dafa am jigéen ju ko bëggoon moom yaxyaa yónnee ci moom mu bañ ba mu demee ba naagu xam ni mën ci jot ci yaxyaa mu def ci ay fexe ba ñaan ko buur ba mu may ko ko mu ni ñu rey ko indil ko bopp ba def beret ji ci benn weer واخا كني واخ سعيد بن موسى يبهنني بخت نصر بمو نيوي دمشق فك درتي يحيى دفوف مولاد نوخو مو راي فا جروم نيار فك جوني نيت غير جوتي كو درت جوجو فور غا دوغا دال ولا اسما بو غير لا إيه، ما تي سعيد بن موسى ياب كون لنجي ديغي موي موم يحيى بن زكريا نينكو راي دمشق قصة البخت نصري leer na ni kon ginnaaw Isa la amoon ni ko Xata ak Xasan Basri waxee wala alam kon loolu mooy liñ doon jàngat ci xisab Zakaria ak Yaxya bu benene incha allah ñu àndi xisatu sayidatina Mariam ndax ñu mën a dugg nag ci xisab sayidina Isa alayhi salaam jàngat ko jàngat dini nasraan jeeg nañuy doxee ak la ci aju يعني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته